merci madame Fall. Bonjour chers parents, bonjour chers grands-parents, professeurs, tantes, oncles. Nous, filles et garçons Lara, nous voudrions faire un petit discours de remerciement. Nous aimerions commencer ces remerciements par un merci général envers Tata Bintegei et la famille Lara Araldi qui ont décidé de nous accorder ces prix. Tata, ce ne sont pas les prix que vous nous donnez qui nous rendent heureux, mais le fait que vous nous considérez comme des leaders. Tata, quoi que nous devenons, ingénieurs, directeurs de société, transitaires, banquiers, nous n'oublierons jamais, je dis bien jamais, ce que vous faites pour nous. Tout le monde sait que ce n'est pas facile euh, de, regrouper plus d'une soixantaine d'élèves et de les récompenser. Pierre, euh, mais vous avez eu le courage la brave, et la bravure de le faire. Donc vous êtes les Jigen Boumango. Et nous croyons que d'ici il y aura une parité totale. Pierre Dac a dit La façon de remercier dépend de ce que l'on reçoit. Juste pour vous dire que euh, je n'ai rien dit. Pourquoi? Car j'ai pas les mots pour vous remercier. Donc, un grand merci à Tata Bintegay et la famille Lara Aradi et tout le monde et tous nos parents, nos aînés, nos tantes, nos qui ont laissé leur travail pour la réussite de cette cérémonie. Merci encore. donc kontante laay que suñu candidat yëpp ñu doon def bac ak ñu doon def BFEM comme d'habitude ñoom ñëpp jàll nañu mais liñ ci gën a neex ren mooy amuñu woon sax candidat buy def bac L candidat bi mooy buy def bac suñu candidat yëpp bac S1 lañ doon def ak S1 ak S2 ñoom ñëpp jàll nañu donc dañuy wax alhamdulilah ci combat bi ñuy mëne actuellement muy orienter les filles vers les filières scientifiques combat la ba nga xamante ni ñu mën nañu wax ni ñu ngi koy gagné puisque bi ñuy commencé en amuñu sax élève buy def seconde mu commencé def quelques années ñu gis ay élèves yoo xam ne ñu ngi def seconde première terminale mais bac L lañ doon def bac yëpp am nañu importance mais ñun ñëpp mënuñu bokk di gis xale yi di leen xool ñuy def ñun ñëpp bac L bëgg nañu ay scientifique bëgg nañu ay ay médecin bëgg nañ lépp discipline boo xam ne amal na askan wi njariñ donc ren man de mbégte laa ci am ndaxte xale yëpp non seulement bac lañ am bac S lañ am mais surtout bac SE daf ci am ñoo ngi doog a am sax lauréatu bac S nga e bañ commencé ba tey bac s yi moom ba ñu commencé ba tey xale yi dañu am bac s ay ñoom maam jaara ay ñeneen ñeneen ñoom ñuy def yeneen discipline mais bac S2 moom ñu ngi door a am donc mbég la daal te ñaari candidat yoo xam ne bac S2 S1 def ñi ci des ak S2 la ñuy def. exactement credo boobu ñu ko lancé surtout mooy étudiante laraay ñooñu étudiante laraay ñoo organisé wu ni ñoom combat bi léegi seen combat la. parce que nekkoon nañ ci condition yi nga xamante ni bu dul wóor prix Lara du ñu am bac bay def la nañ moo tax ñu ne ñoom it seeni sœur dinañ fexe ba li ñu am ñu am ko donc li may wax ñu ñooy référence yi xale yi di xool ci ñoom xam ne ñii ay fii la raada yoon ay étudiante lañu am na ci ay enseignante am na ci ay ña nga xamante ni am nañ seen master am na ci ñi nga xamante ni sori nañ ci wàllu médecine donc ay filles la raada donc ñu ngi ñaanal xale yëpp ñoom it ñu dem ba li nga xamante ni seen moroom yi nekk nañ ko tey ñu nekk ko. jàng balaa ñuy am jëkkër. bac avant le mariage. li ma indi woon fii maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit ci seen laaj bi li ñu indi fee tey mooy fête li ñuy wax fête de mooy benn jigéen bu nekk fii ci Pire di liggéeyal askan wi. mu tudd Binta Gueye moom chaque année dafay jàppale xale yi juróom-ñetti at a ngi nii muy jàppale xale yi di leen defal ay bourse di leen accompagner pour que ñoom bu ñu demee ñu mën a réussir bii mooy juróom-ñetteelu at bi te lu dul dëgg du yàgg te moom dëgg juróom-ñetti at ku koy def di jàppale xale yi non seulement bu ñu amee seen bac mais ba ñu dem université loolu man moo tax ma ne dinaa bàyyi lépp pour ñoo ne ko jërëjëf ndax liggéey mu ñuy liggéeyal ñun ci système éducatif bi parce que fii Pire xale yi am nañu ay résultats yu baax ci CFE bi ci bac bi ak ci BFEM bi seen taux moo gën a baax taux régional bi te ñun suñu taux régional ndax euh, ci CFE bi certificat bi xale yi tey ñu ngi ci 63 virgule 31 euh, pour cent mooy juróom-benn téeméer bu nekk am na juróom-benn fukki xale ak ñett yu jàll mooy 103 virgule 31 pour cent loolu lu ñuy rafetlu la ndax daaw 42 euh, pour cent lañ amoon donc def nañ bon boo xam ne dépassé na ñaar fukki poñ te loolu lu am solo la ci njàng ci bac bi. tamit am nañ ay points ci kanam ndax xale yi ren lañ gën a réussir ndax daaw ñu ngi woon ci 35 pour cent ren ñu ngi ci pour cent BFEM bi ñu woon daaw si ay 39 euh, pour cent ren ñu ci 47 cent def nañ ay bon bu ëpp juróom-ñaari point loolu lu am solo la ci réussite xale yi léegi nag ñu mën a xool déwén nan la ñuy defee taxawalee ay anam yoo xam ne ne xale yi dinañ gën a réussir ndax ñu xool ci téeméer bu nekk boo seetee ci BFEM bi ak ci bac bi ju xaaju xale yi duñ jàll te loolu lu baaxul la lu mënul jëmale suñu réew mi ci kanam donc dinañu liggéey fii ci région de Thiès ak acteurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp taxawal ay stratégie yoo xam ne baar bi dinañ ko yëkkati ba ci kaw ba nga xam ne xaa téeméer bu nekk lu ëpp xaaj bi dinañ mën a jàll ci BFEM ak bac CFEE euh, bi nga xam ne ren am nañ plus de juróom benn fukki xale ci euh, téeméer bu nekk ñu ñu dépassé di pour cent ñun daal dina am ay euh, loo xam ne daal loolu la ñu yootu ji te di liggéey nag pour que ñu mën a jot loolu ci suñu système.